Abonnez-vous sur votre chaîne YouTube Taysiroul Wousoul bu Oustaz Alhaji Thiam ñu koo xam ci Moustapha Gueye 2 al alimul leen ngeen jotin mboolemi xibaar xam sa diine rek moo ko tax a jóg ak xew-xewu jamono kon mbokk ñu ngi lay ñaan nga nga bës kolos bi yokk ñu tuuti sens koo ànd du la bàyyi mukk nag mooy loo nooy gu ànd ak dogu xol bu sew bu ànd ak yërmande gaaw a mer ينتي بلو متى يلنكو فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليس القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله كوكو علي عمران مغيتي تيمير اك جروم ينفكا اك جروم ينت لولو موي نويل سجيكو آه، مبوكي جانو نيون تي كو لينك دانيو جيسنا كون غموك يونتبي صلى الله عليه ak gëm yàlla la goo xam ne gu dëgër la waaye gu sax la mu daan jaare ci yoonu yàlla joxe ba bakkanam ak alalam itam noonu beneen ba moo di ne fokk nuy dimbalante ci lu baax ak topp yàlla yonent bi sallallaahu alayhi wa sallam dafa daan dimbale képp ku ñëw ci moom donte ku bon ci moom la sax ki ko xañ sax da ko daan jox ndax alquran moo ñu waxoon ni wa taawanu ala albirri wa taqwa wala taawanu ala al ismi wal udwan suratu maayida la mooy ay ñaar ca bopp saar wa solidarité waxoon naa ko ci waxtaan weesu ak wéeruwante ak dimbalante dimbalante lu baax la rawaate na ci ulama yi ngeen dimbale leen ngeen dimbale azatise ngeen dimbale ndong daara ngeen dimbale ñiy jàng ndax ñu mën a jàngale ngeen dimbali leen ndax ñu mën a toog bind jàng jàngale waar doomu aadama yi leen ngeen dimbali leen ndax ñu mën taxaw ci amru bil maaruf wa nahyi anil munkari digle lu baax tere lu bon kon nag mu ngi mel ni nga xam ay julit yu bare nga koy def ah ñii di ko def ci jàkk yi ñii di ko def ci juma yi bu koor gi jotee ñu bari di joxe ay suukar ñi di joxe li nga xam ne moo di ay ndogu su ma waxee joxe ay ndogu nag waxuma ni gune yi def taxaw ci mbedd mi di yelwaan ay xaalis di ko séddoo wala defar kafe gu amul sukar wala di ko joxe ndogu ba pare te wóoruloo amul benn njëriñ yàlla du la fay dara yàlla du la fay dara booy joxe ndogu te boo bokkoo ci ñëw woor duñ la fay dara ndax innama yataqabbalu llahu min almuttaqin alquran daf ñoo wax ne yàlla du nangul lu mooy ki ragal yàlla te ki ragal yàlla buy mu kalaf day woor mu kalaf mu woorul wóorul ragalul yàlla kon loolu muy def tuddee ko yàlla diinu minhu bari lislaam yoonam nekku ci bokk ci mbiram boppam rekk la euh, naka noonu euh, gis nga yàlla dina dimbale diine sax ci ab kàccoor ab kàccoor mën naa dimbale diine donte duñ ko fay dara ëllëg naka noonu euh, jullit ñi nañu jàppalante di dimbalante digle lu baax tere lu bon والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن kari kooku tawba la ay juróom ñaar fukk ak benn beneen bi ci jikkoy jullit moo di maando tàmbali woon naa ko maando daal mooy nga yem ca la nga war a def rek te mu dëppoo ak sunna mu dëppoo ak nga rafetal ci bindee fi yàlla yi nga dimbale booy dimbale na nga dimbale ñi lay jege ci deret wala ci bokk wala ci dëkk na nga rafetal sa njaboot ci sa njaboot d'abord fexe ba ñu am dund fexe ba ñu am kodd fexe ñu am jàmm ci yow loolu mbir la moo xam ne ci ngay njëkkee moo tax alquran di ñu wax naan yàlla day dafay digle am maando ak rafetal ak ki la jege nga jox ko dimbale ko yàllaa ngi tere lu bon ak luy sib ak ak bew ak ak réer kon lii la ñu yàlla waaree ne mooy jikkoy jullit ndax tere tey nu waaru inna allaha yaamuru bil adli wal ihsan wa itaai dil qurba wa yanha anil fahshai wal munkar wal baghi yaidukum laallakum tadakkaruun kooku sooratu naxli la ay juróom-ñeent fukk beneen bi moo di ne bokk na ci jikkoy jullit ji bëgg nu di ko def mooy ñuy def taw ji ñuy jubale wax ju baax ak wax ju rafet ci nit ñëpp xam nga sa mbokkam jullit boo waxee ci moom lu bon dana ko dégg boo ko ko jëwee dana ko dégg tôt moom kay da koy dégg fekk ñu yokk ca wala ñu wàññi ko fokk dina ko dégg kon nag da leen wax ci jullit ñi lu baax comme ni ñu ko alquran sante wa qulu linnaasi kooku suratul baqara la ay juróom-ñett fukk ak ñett lii bokk na ci jikkoy jullit beneen bi mooy na ñu tawe nañuy joxe ki am dara na joxe na dimbale kii ñàkk wala mu néew doole nañuy muñit bu ñu tooñee ñu ñàkk fayu nañuy bale yonent bi saa sallam dañ ko daan tooñ mu bale ñàkk fayu tey bu ñu gaaw di mer même yonent bi du mer mukk lu mooy ba te ñu jàggatee diine wala ormaam kon nag gis nga ñu ngi tagg ñi nga xam ne dañuy joxe bu ñu amee ak bu ñàkkee naka day day ñu comp ca joxe ak ñi nga xam ne suñ meree dañ koy nëbb ba duñ jëfandikoo lu bon ak ñi nga xam ne dañuy bale doomu aadama yi buñ leen tooñee ak ñi nga xam ne ñoo def ihsaan mooy di jox nit ñi ak di leen dimbale alladina yunfiquun fi sarraai wa darraa walkaazimin alxays walaafina an innaas wallahu yuhibu almuxsinin loolu mu ngi nekk téeméer ak e, ñett fukk ak ñeent ci surat al beneen bi mooy na ñu dëgëral suñu bokk bokk gi ñu bokk diine nañuy dox itam pour yewenal diggante nit ñi ni ko yonent bi defe woon foo gis lu yàqu demal nga defar ko mën ngaa ñëw ci ni sax ne ko diw daal lu baax li muy wax ci yow donte waxu ko fen woowu dañ la ko may dañ la ci fay sax aw yiw su ko ku bu ko méré won sax da nga gis mu commencé wàcc diw dal ni muy def ci yow limuy wax ci yow lu bax la vraiment même bu ko méré won lama bañ ko da nga gis mu wàcc ci non la yent bi defoon digënté aw sa xëz rek fexe ba bokalé len fexe ba bokalé digënté mu muhaajiroon ak leen saar moo tax alquran waxoon nañu ko innama almuminuuna ixwa fa aslihu bayna akhawaykum wa taqullaha laallakum turhamun ragal leen yàlla ndax ci lee tey mu yërëm leen fukk la ci suratu xujuraat euh, bu ñu deeyaale itam di euh, woo wootante beru fale di wax di déey ci lu yàq beru fale di réunion wala di daje loo xam ne dafay yàq dëkk bi dafay yàq diine ji dafay yàq réew mi wala dafa yàq ak bokk loolu dañu ko tere waxtu wuñ dajee di déey rek na fekk aw yiw la ak luy jëriñ diine ji ak dëkk bi dañuy gëné itam sarax ak def defar digënté bu yaqku yonent bi sallallahu alayhi wasallam sallam day moom daana tere ñuy déyalé lu may ci jàmm nee na ñett sax bu ñu nekkee ñaar ñi bu ñu beru fale di yow ci fa kenn ki da fay ñaaw la khayra fi katiri min najwahum illa man amara bis sadaqa aw ma'ruf aw islah bayna an-nas kooku soratu nisaa la téeméer ak fukk ak ñeent li yëpp nag buñ koy teree ci déyalee mooy ragal aw ay rek mbokk jullit yi euh, bokk na ci jikkoy jullit nañu dëddu fo ak caaxaan ñu dëddu fo ak caaxaan ak ay mbóosóor nañ ko dëddu ab julit du sax ci ay fo ak i caaxaan dama koy wax xam naa dañu naan sax imaam bi xam naa dafa tardé ubbi sa benn télévision te yaa ngi ci weeru koor ñuy tëgg di fecc di seetaan ay ay ay yarami ay jigéen yarami ay góor ak col goo xam ne kenn sant ko te yow danga woor nga yaakaar ne yaa ngi ci dara naan da ngay dàq koor dëgg la yaa ngi dàq koor gi ndax day day dem day sori day dem dootoo am aw yiw liñ la waroon a fay ci yiw yëpp duñ la ko fay loolu mooy caaxaan yi nga xam ne toujours dañ koy seetaan bu làmb jotee wala bu tëgg ak fecc jotee yow yaa ngi woor loo seetaanee loolu sab yool day wàññeeku jàngalal quran mënuloo ko demal nga julli ji mënuloo ko demal nga liggéeyi mënuloo ko demal nga nelawi lan nga seetaanee ay caaxaan ba mu di la fàttaloo yàlla wala ngay sànq waxtu yàlla yi loolu yëpp bokk ci jikko yi jullit dañ koy tere kon nag القرآنية وحنان تهنا دي جلد نيغا قمنا نيوم أي تشاخان دن كي ونقناو قد افلح المؤمنون الذين هم عن اللغو معرضون جلد نيتهنا نيغا قمنا أي تشاخان دن كي ونقناو قام قلو قلو وردي مو ايغو بسبب التلفزيون مو يتقدي فتش شان بمنا دون ak yi defi caaxaan ak i cabax-cabax nga nekk ca nekk ca nekk ca nekk ci ba mu guddi nga dem tëri sa esprit yëpp li ci mujj mooy ay caaxaan gis nga guddi googu boo ci deewoon doo texe doo texe moom daal fekkee mënoo ko ñàkk def te tere nañ la ko boo ko defee balaa ngaa tëddi jàppal au moins nga julli ñaari rakka dellu ci yàlla loola mujj ci sa esprit waaye nekk ci télé bi rek muy bajax bajaxi ngay seetaan ba mu guddi rek ba nga nelaw foofa door a jëm nelaw yi loolu dañ la koy tere bokk ci jikkoy jullit bokk na ci li nga xam ne kenn tànn ko beneen bi moo di nañ jéem a rafet jikko muy makaarimul axlaaq mooy buñ la tooñee nga ñàkk fayu ndax am buñ la tooñee nga fayu amuloo bàkkaar waaye martaba bi ñuy tuddee makaarimul axlaaq àggagoo ca way na aqabtum فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به waaye wala in sabartum la huwa xayrun lissaabiriin ndax lii la muy téeméer ak ñaar fukk juróom-benn ca saar wa naka noonu toroxlu wàcce sa bopp muy modestie ñàkk puugare yu ci kanam nit ñi yonent bi sallallaahu alayhi wa ku wacce woon boppam la waaye ku bëggoon nit ñi la loolay jikkoom loolu la ñu sant bul wan nit ñi gannaaw bu leen wan ab lex xool leen noyal ak ñoom na nga def ak ñoom jàmm bul rëy rëylu ci kanam nit ñi doo dara wala tusaayir xaddaka linnaas wala tamshi fi l ardi maraxan innaka inna allaha laa yuxibu kulla muxtaalin faxuur wala tusaayir xaddaka linnaas wala tamshi fi l ardi maraxan inna allah la yuhibbu kulla muxtaalin faxuur luqmaan la bu muy dénk doom ji aaya fukk ak juróom-ñett ah mbokki jullit yi bokk na ci jikko yi ñu bëgg jullit yi jikkoo ko mooy ñun ñëpp nañ bëgg jàmm waaye nañu sukkandiku ci yàlla xam ne mooy maye am na koo xam ne dàqoo koo kër kër yi mu ëppale la am na koo ëppale dàqoo koo kër kër yi kon yàlla mooy maye kon nañu ragal yàlla te rafet nu nuy sàkkoo ni ñuy sàkkoog ni ñuy fàggoog ni ñuy wutee nañ ko rafetal na jaar ci diine lu xaraam buñ ko jënd buñ ko jaay lu ñu tere nañ ko bay nañ bëggal jullit ñëpp jàmm ku nekk na nga bëggal sa mbokkam jullit li nga bëggal sa bopp te bëggaloo sa bopp lu bon moo tax yent bi dañuy wax naan laa yuminu ahadukum xata yuxiba li axihi maa yuxibu li nafsi muttafaqun alayh kenn ci yéen duñ ko nangul ne gëm na yàlla lu mooy mu bëggal mbokkam li mu bëggal boppam muttafaqun alayhi te it xataa ki xulool di ko xeexal xataa bu fekkoon geer la seen diggante buñ ne jàmm nangul jàmm xam nga guerre kenn du ko gañe Léopold laa déggoon muy wax bu yàgg naan xeex bu jotee il n'y a pas de vaincu ni amul kenn ku ciy gañe ñëpp rek ay perte kiy gañe ba ëpp doole perte na ay ruuxu ak alal ki ñu gañe it wax a noppi kon guerre baaxut xeex bu nekk ci toog waxtaan lay mujj kon nag wa in janaxu li salmi fajnax laha wa tawakkal ala allah innahu huwa samiul alim bu ñu jéngee jëm ci jàmmoo daal yow ma jiite réew ma it jéngal jëm ci jàmm te sukkandiku ci yàlla beneen bi ci jikko ju baax ji mooy nga muñ li la nit wax xam nga ko am solo ku nekk da am baatu gannaaw léeg-léeg ñu saaga la léeg-léeg ñu xas la léeg-léeg ñu ŋàñña la léeg ñu dëkkal la foo dëkkut ku nekk rek am nga ko ko am solo ku ne am nga ko waaye gis nga dof bi sagar ci mbedd mi kenn du ko kenn du ko ŋàñña kenn du ko xas kenn du ko wax dara waaye boo amee solo ah fokk ñu lay teg ay baati gannaaw kon nag ku jiite am réew da ngay muñ de lu nekk ngay jégg